jaajëf Mountaga Aba Diatta ci dem beex dikk bi Mamadou Fofana société civile bi nee nañu pacte ba ñu xaatimoon ak président Bassirou Diomaye Faye bu muy nekk euh, candidat la ñu bëgg mu appliquer ko. oui c'est le mal de nos politiciens malheureusement. Mm-hmm. bu ñu bëggee falu moom. loo teg lu ne dinañ ko signé. avec Macky c'était pareil. Diomaye ay en de suivre les traces de Macky ci loolu. parce que ku toog 100 jours boobaa léegi ñu lay rappel di la rappel pour di la dóor code. pour war leen kat ne la ñun kat la ñu waxoon nag yow sax waaye mënoo ko sàlloo ba léegi nii out audience mënul nekk mais au moins nga bind leen ne leen peut-être j'ai un agenda un peu chargé au moins par euh, euh, élégance ne na leen kat dama am agenda bu chargé gis ngeen tooguma mais jàpp leen ne li ma wax li dinaa ko respecté et dinaa leen jël audience mm-hmm. mais tey jii nii boo leen gisee ak li ñuy wax nii c'est parce que dañoo am jiixi jaaxa xàmmeetuñu ka nga xam ne moom moo signé woon li nga xam ne moom mooy charte de bonne gouvernance et man jàpp naa ne rupture mi ngi tàmbali ci yépp li nga xamante ne nii jàppoon nañ ne kat teguwul ci yoon wala jàpp nañ ne kat lii nekkul wala sàlloowul ak ci yorin wala ŋàbbin ku baax wala ku bëgg jëm ci li nga xam te nii ñëpp bëgg nañ ko mais au moins tey waroon na mën a tax ñu adopter cette rupture là tàmbali ko ci respecter yenn engagement yi nga xam ne jël nañ ko mais malheureusement au Sénégal opposition moom noonu la boo ko nekkee sa waaye da ngay wax takki rajo lu ñu la tegal nga signé mais boo xasee falu moom lépp ngay pousse fële doxalee nam la neexee maintenant nag nit ñi ñoo war a yeewu en l'occurrence cette nan la tudd société civile ñoo war a yeewu par rapport ak justement les ñi nga xam ne ñooy les hommes politiques lañ leen wax ak li nga xam ne loolu lañ leen gëmloo te au du nekk loo xam te ne ni dañ koy respecté. loolu moo lu ñu waxtaanee déclaration de patrimoine bu euh, président Bassirou Diomaye Faye def na ko euh, daanaka ci diiru euh, fukki at ak juróom ci carrière am moom président Bassirou Diomaye daanaka la mu ci am gis nañu ne am na ay ay terrain am na également kër bu nga xam ne nii daanaka bakkee na lool teg ca compte bancaire bu nga xam ne la sa nekk mënees nañu see jafandu loolee nag tax na. ñu dikkaat def taxaw seetlu ci avantage yi ak privilège yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci fonction publique bi euh, boot di gi ñu ci euh, nemmeeku Ibrahima Sarr confédération démocratique de syndicats libres du Sénégal la bokk Lamine Fall confédération nationale des travailleurs du Sénégal la bokk nee nañu kopparu euh, président de la république rek war naa mën a tax ñu gën a dooleel ñoom seen sàkkuteef jëm ci ñu xoolaat bu baax égalité salariale bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci fonction publique bi ñu àndal Cheikh Younoussa Baldé re yu am valeur ay contre bancaire yu am xaalis tuuti patrimoine njiiti réew mi di président Bassirou Diomaye fay jot nañu ko publier donte sax ki fi nekkoon inspecteur des impôts et des domaines amul alal gu bëri waaye ci gis-gis secretaire général adjoint confédération national ñeel liggéeykat yu Sénégal di CNTS alal bu njiiti réew mi am defay dëggal xeex bu ñuy xeex ñeel ñàkk yemalik bu am ci payoor ci diggante agent yu nekk ci fonction publique bi Lamine Fall di xam ne nii rek rek disparité salariale bu am ci diggante liggéeykat yu nekk ci fonction publique bi nag dafa jéggi dayoo moom sax mu jàpp nii rek débat bi dañ ko war a teg ci table bi te société civile moo ko war a def ñu xoolaat bu baax a baax ni ñuy fay agent yu nekk ci fonction publique bi ci gis-gis secrétaire général confédération démocratique ñeel travailleurs de syndicats libres du Sénégal ñàkk yemale boobu nag dañ ko war a rectifier bañ a ci Ibrahima Sarr conséquences yu métti yu muy jur nee na tey jii nii bari na ay agent yoo xam ne dañuy dumuy seeni i koor dem feneen ndaxte lu ñuy fayeeku dafa neew lool lu amba des Lamine ak Ibrahima Sarr di ñu xamal nii rek fii njiiti réew mi am na occasion ngir jëmmal seeni kàddu googule di jub-jubal jubanti jeex na bañ nga ciy def euh, loolu Euh, c' est vrai que ñëpp mënuñ yem am na olof Ndiaye dafay wax naan bu ñëpp yemee am ñu génn seen cër du noonu waaye nag euh, bu ñu waxee déséquilibre bi dafa dafa dafa bëri lool entre ñi nekk ci régie financière yi xam nga mooy yan koor ñoo xam ne boo bu ñu amee lu ñuy nëbb ñoom ñoo koy nëbbale xam nga politiciens yi ñooy sàcc mm-hmm. mais xeetu fonctionnaire yéen ko mën nëbbale xam nga li ma la bëgg ñi leen ko mën a nëbbale ñooñu la ñuy faral di jox yenn yenn privilège yi kon dafay mel ni dama lay yokk doole léegi man samay ayib nga nëbb ko samay kii quoi samay giraawaal yi nga nëbbal ma ko loolu lay niru bon on respecte na quoi ci koor boobu noonu dañuy respecté koor yooyu xam nga parce am na ay nit ñu baax ngi nekk waaye parce que dafa am lu suspect mm-hmm. euh, Madiambel Diagne parce que réew mi tam il faut que def inventaire di fàttaliku dafa bind ci at yëpp ci Ousmane Sonko naan li muy déclaré ay kër ak dëgg li mu am ci kër bokkut mais loolu Ousmane Sonko sax moo war a fii lañ war a convoqué tey Madiambel Diagne boobu ne ko yow li nga doon wax bu dee dañoo bëgg mu leer ne ko yow Madiambel li nga doon wax waxaat ko tey parce que li mu doon wax ci Ousmane Sonko dafa garaaw dafa def déclaration de patrimoine kenn laaju ko boobu nee na moom mooy wootam ceeb 2016 Madiambal ne ko am na kër yoo waxut Madiambal yokku ci ne 2008 yéen inspecteur impôt yéen waa impôt da ngeen grève bi ngeen grève yëngal nguuru Ablaye Wade xam nga ne boobu la sàccum suuf takkar nag waaw ci jamono yooyu dégg nga bi ñu yëngalee nguuru Ablaye Wade 2008 boobu noonu après dañoo dakkal grève bi ñu jox leen kër ñoom fan la ñu teg leen di jox kër mais kii am bac xam nga tey ñu ngi def concours général ci xale yooyu am nañu am 19 moyenne xale yooyu dañuy dem def bac C wala ñun suñu temps C lañ koy wala S mais génnee Saint-Cyr génnee Saint-Cyr wala nekk professeur agrégé yu mag a mag est-ce que jox nañ leen kër ñooñu noonu. mais xale bi nekk tey ci frontière bi nekk capitaine ci arme bi wala lieutenant wala kii noonu di jaay bakkanam kooku noonu. est-ce que jox nañ ko li jox inspecteur impôt yi nii. wala douanier yi li ñu leen di jox affaire yi gisuñu benn douanier bu ñu jàpp ak ay 150 xaw ma genre yooyu. Mm-hmm. vous léegi nag loolu laa la wax dafa luus et puis patrimoine Bassirou Diomaye Faye bi il ñu arrêté ci dañ ci war a taxaw parce que gars yi dañu ko bëgg a jàllale rek li mu wax ci campagne bi ak li mu wax bees nii bokkut loolu dañ cee war a taxaw ak kër gi tam nan la demee ak valeur kër gi parce que valeur vénale la ñu wax ba tey nii démb maa la koy wax nii kër gi lan lay jar dëgg-dëgg waxuñ ko ba tey dañ cee war a taxaw parce que man dama jàpp ne Bassirou Diomaye Faye déclaré gul patrimoine ba tey pour man déclarer wu patrimoine de parce que li mu wax tant que eggul il faut ñu xam lu moom lépp mais waxagul lu moom lépp parce que kër gi neen xaw dañu ko estimer rek ne ja à peu mais dañoo war a toog def expertise xam kër gi ñaata lay ak par delà bi ñëpp ñu nekk ci corps bi démb Simon mi ñu ko doon wax bari na inspecteur des impôts doon ci tudd benn terrain digganteem ak beneen ministre et mm-hmm. yooyu yëpp dañ ko war a leer man ci laay entre ñi nga xamante ne parce que dafa war am un développement harmonieux li ñu naan un Sénégal de tous un Sénégal par tous et pour tous bu ko defee ñëpp yam ci. Abdou Aziz Diop moom acteur société civile bi dafa gis ne ni ñu defee kon déclaration de patrimoine booy dugg noonu nga ko war a defee booy génne ba noppi mu gis ne bu ñu defee seen déclaration ba noppi nag neexul ba neex may ñenn ci société civile ak presse bi waroon nañ leen ko jox ñu man see dafa jàngat ay kàddoom ak ñaan ñun en tant qu'acteur de la ñi nga xam ne déclaration de patrimoine daf leen gàllu muy yi ñooñu OFNAC la ñuy seen déclaration de mais kenn du ko fësal xëy na mën nañ ko bañ a fësal ci askan wi mais kuréelu société civile wala universitaires yi wala yenn structures yi wala benn gouvernance ak wàllu leeral war nañ mën a xam la ca biir loolu yaakaar naa lu ama am solo la beneen bi aussi mooy dañu ne président élu bi ñu tabb mais président réélu bi ñu tabaat nag loolu aussi xaw na am tuuti jiixi jaaxa ndax président de na déclaration fashion ñu naan pour président réélu mën a def déclaration de patrimoine yaakaar naa suñu ko gënee xalaat gën a jag-jagal dina gën a ñoŋal bonne gouvernance ak yorin lu sell Ilimaanu Jawriñ la woon bokkoon ci candidat yi daanaka moo jëloon deuxième moom Amadou Ba mi ngi doxantu ci kër kilifa diina yi gannaaw Touba mu ngi woon ca Tiwaawan foofee sàkku na fa ay ñaan ci kilifa diina yi ñu ñaax ko it ba noppi it yëkkati na fa ay kàddu jëm ci ëllëgam ci wàllu politique amadu Ba ay kàddu yu mu dénk Pierre Claver Pouy Mbaye Talxuma. sëriñ bi nag wax la li nga xam ni moom mooy lim la war a wax li muy wax mooy nañu fexe réew mi am jàmm li muy wax mooy nañu fexe ñëpp ànd jublu doon benn li muy wax mooy nañu liggéey. li muy wax mooy nañu bañ a yàkkamti maanaam loolu lañ doon xaar ci moom loolu lañu wax incha allah ci tànk yooyu la ñuy nekk. loo xam ni bëgguma di ko wax ci jataay yu mel nii bëgguma di profité ci ay situation di wax te nit ki war na fexe ba looy wax mu doon loo xam ni xool nga ko xoolaat ko jàng ko jàngat ko. am na gouvernement bu fi nekk ñu ngi ñu ngi liggéey. la nga xam ne jàpp nañ ni baax na danañ ko wax la nga xam ne jàpp nañ ni buñ ko defee nee na dana gën a baax danañ ko wax. la nga xam ne jàpp nañ ni tegu ci yoon dinañ ko dinañ ko wax buñ ci buñ ci tolloo mais am na loo xam ni jarut a jarut a